toon fan yi si ginnaaw benn projet loi boo xam ne moo nekk loi habilitation muy jox ndigal président de la république ak sañ-sañ jox ko lu toll si 1000 milliards ngir mu war koo jël jëfandikoo si biiru ñetti weer génn 69 milliards yoo xamante ni daf ko war a jënd dund pour dimbale ko askan wi nga xam ñoo gën a néew doole ci ci Sénégal. loolu buñ ko ko joxee député yi nag am nañ sañ-sañ ñu ne si département Mbacké muy député opposition ak pouvoir bi yëpp ñu def waxtaan daje def ay proposition biñ si waxtaanee ba pare ñu man ma woo Mansour Faye. proposé ko li nga xam moom la ñu déggoo mu ne bu ngeen demee ci préfet ak maire yi lépp loo xamante ni juboo ngeen si loolu ñu ànd si doxale ko noonu ndax ku ne xam ne Touba population bi mën na un million de cinq cent te li nga xam mooy ñëw fii parce nangam la kon jàpp naa ne bi nga xamante noonu la mën a sukkandiku pour li wax ni moom la ñu koy kon population bi du am ñaareel bi ku ne xam na ne bourse secret familial bi nga xamante si leen bëggoon sukkandiku bourse bi baaxul ndax danga gis chef village boo xamante ne wala kenn koo xamante la nga di quartier dafa bind boppam bind rakkam bind ñaari jabaram bind ay doomam kon jàpp naa bu ñu ko séddalee ñooñu nit ñi duñ am ñu ne léegi nañu xool ban anam la ñu ko séddale mooy dañuy feseen taxul benn comité boo xam ne ci quartier lay doon yoo xamante ni ñoom ñëpp tey dañu ñu mën a bokk si muy ililiku yi muy député yi muy représentant ñeneen ñi au conseil yëpp bokk ci comité yooyu noonu ñu jéem a xool nan la ñuy def ba nga xamante doon donte kenn ku nekk da nga benn saako ceeb benn euh, diw benn saabu lu man di doon pour askan wi mën a jot si loolu ñu bañ ko def doublon bañ ko sàcc aussi ndax dafa am loo xamante ne wax naa leen ko ndax ñu ko bàyyee ak chef lois yi buñ ko defee tamit askan duñ si jot préfet d'accord na suñu proposition donc adapté incha allah valide ko yónnee ko ci kaw mooy xam ni département Mbacké Touba particulièrement population bi fi nekk ànd nag député ñoom ñëpp pour que li nga xamante noonu lañ proposé ñu d'accord ci loolu tàmbale ci quartier war am benn saaku ñu jox la ko ku war a ñaar saaku ñu jox la ko mais mu àgg ci biir askan wi askan wi nga ne moo tax mu jóg ñu génn ci maanaam nga xamante ne ñoo bokk ci département yi muy représentant peuple buñ bokk chef loi ko jox ñi nga xamante ne ñoo ko mérito war ci ko a jël loolu moo taxoon daje bi ñu ngi ko rafetlu baax insha Allah di leen sant tamit te xam rek moo tax ñu jóg je vous